asalaamaaleykum sama mbokk internet yu enquête 221 nuyu naa leen di leen jaajëfal tey nag dama fee teewoon pour rubrique sport bi en route vers la finale tey nag dafa am ku ma ci àndaloon du ma leen ko présenté nag dama koy bàyyi mu présenté ko boppam salaamaaleykum. maaleykum salaam euh, Rama maa ngi lay nuyu di nuyu euh, internetu enquête 221 yëpp euh, di am mbégte tey en tant que journaliste sportif Malick Thiandoum. jàkkaarloo ak yow sama jarbaat nga ah. ñu fas yéene waxtaan ci li nga xam ni tey euh, moom la Sénégal yëpp di xaar Afrique yëpp di ko xaar muy euh, la finale de la trente-deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations Sénégal war ci joŋante ak euh, Algérie. nan nga gisee football bi jamono gi toll nii. waaw football bi moom ça va parce que. 17 ans après Sénégal mi ngi waaj a dem Coupe d'Afrique des Nations euh, mi finale Coupe d'Afrique des nation mu nekk lu nga xam ne xëy na génération yu bëri comme yow fàttaliku bu ndaw lañ ci am ndax 2002 ñu ci bëri ay xale la ñu woon tey ñi ma gis ñëpp ñuy génn ci peuple bi di manifester di sol maillot Sénégal fekkewuñu woon jaloore yi ñoom El Hadj wala boog lu tuuti lañ ciy fàttaliku donc 17 ans après le Sénégal a rendez-vous avec l'histoire euh, dem finale Coupe d'Afrique des Nations mu am particularité parce que Aliou Cissé dafa nekkoon joueur en 2002 tey mu nekk entraîneur de l'autre côté war a yóbbu xale yi final ci Coupe d'Afrique bi donc euh, tey football bi mi ngi fédéré réew mi mi ngi tax ñu bëri euh, jafe-jafe yi ñu nekkoon ñu fàtte ko stress bi commencé wàññeeku réew mi commencé mobiliser wu waat te loolu football rek presque ci li ko gën a mën ci la bokk ndax c'est pas pour rien tubaab bi di wax le football est l'opium du peuple donc tey dem nañu ba toll ci niveau bu nga xam ne euh, réewu Sénégal ñu bëri ñu ngi commencé kolewaat ci équipe nationale di amaat yaakaar mais boo xoolee kaan bi engouement bi nga daan gis en deux mille 2002 gisoo ko parce que yaakaar daf ñoo jégul saa bu ñu amee yaakaar am engouement woykat yi di woy fii ku nekk jóg di wax ne affaire bi man la finalement gàcce lañ ci jële moo tax euh, ren ma am yaakaar ni xëy na pour la première fois Sénégal dina am pot bi ndax euphorie boobu gisuñu ko cet optimisme béyaa amul nit ñi dañuy tiit wa keroog ñuy jël ko bi tant que ñu ngi tiit rek alhamdulilah mën na baax parce que loolu la ñuy gis ndax suñu ay waajur tamit loolu lañ daan wax. gis nañ ni kenn boobu ba tey ñoom tamit ñu ngi xaar coupe bi ba ci ñun ñi nga xam ne bi ñu juddoo yàggul ñun tamit am nañu yaakaar ni kenn ren ñu doon suñu wax. waaw nañu continuer am yaakaar rek dunde yaakaar parce que aussi euh, génération bi am nañu chance su bind histoire Sénégal euh, et je pense que jarul ñu leen di. defal ay discours wala ñu leen di motiver euh, motivation bi ñoom ñoo ko war a am parce que dafa am lu nga xam ni toujours fu ñu nekk dañ leen koy wax ba mu booy seen ay nopp 2002 2002 2002 génération 2002 ñoo fi def lii ñoo fi def lii euh, seen nawle yi ñu bokkal euh, seen continental bi di dajeek ñoom si yenn championnat européen yi bu sénégalais yi waxee dañ leen wax yéen da ngeen rëy làmmiñ mais mosu leen gagné dara. donc tey euh, xas boobu ñoom ñoo ko mun dindi euh, génération 2002 2002 boobu ñoom ñoo mën a effacer jaloore bi fi ñoo ñu defoon te li koy effacer mooy ñu gagner la Coupe d'Afrique des nation et c'est le moment je pense que tous les signaux sont au vert et que équipe bi war nañu mën a yanu coupe bi parce que qualité bi mi ngi fi. d'accord léegi suñu match de poule yi gis nañ ni que ni six points la ñu génnee. yow nan nga xalaatee lool ak suñu attaque bi ñu am. waaw euh, en match de groupe euh, man Sénégal qualifié euh, génn poule loolu loolu loolu c'était évident quoi franchement parce que man dama jàpp ni ak niveau bi Sénégal toll nekk la première nation africaine au classement FIFA nekk ci groupe bu mel noonu. par A plus B lu Sénégal dafa waroon jéen maintenant euh, génn bi xaw na sooxe tuuti parce que benn défaite lañ ci am muy suñu diggante ak Algérie mais suñu ñeneen yaari match yëpp dañ ko gagné mais euh, euh, xam nga bi ñu amee défaite contre Algérie dama dégg Joseph Antoine belle mu wax lu am solo mu ne c'est un mal pour un bien moment bi mu koy wax boobu phase de poule yi jeexagul ñu ngi ñuy soog a gagné. mu ni défaite bi lu metti la ci Sénégal mais lu baax la ci Sénégal donc je pense que tey am na défaite yu nga xam ni moom moo lay defar défaite boobu ñu am contre Algérie moom moo tax euh, xale yi jël conscience que ne mbubu favori bi ñu leen solal ak numéro un de l'Afrique bi ñu bi ñuy bi bi bi bi ñu am ak li nga xam ne moom la ñu def ci parcours éliminatoire yépp c'était remis en cause par cette défaite la donc prise de conscience dafay daal di am ñu xam ne attention ça peut nous arriver de perdre un match et je pense que match boobu ñu perdre tey au départ métti woon nañu bëri mais yoon bi ñu am ni ba accéder final c'est parce que dañu jël deuxième moo tax ñu ñu am yoon bu yomb nii donc yàlla buy defar day mel ni koy yàq. loolu moom yàgg nañ koy dégg. ñu gis ni tamit suñu défense bi nekk na défense bu baax parce que setu nañ ni kenn benn but. donc ci la ñu encaissé voilà attaque bi tamit gis nañ suñu huitième de finale finale demi finale yëpp 1-0 la ñu door ak attaque bi ñu am ku ci mel ni ay Sadio Mané ay May Niang nan nga gisee loolu. waaw déjà on a la meilleure défense du tournoi. Mhm. donc euh, benn but la ñu encaissé euh, en cinq matchs. donc ça veut dire que on a une défense très costaud bi boo ko boo ko xoolee c'est toute une organisation euh, non seulement on a Kalidou ak Sané au départ Sané se blesse Kouyaté suppléé ko def match yu match yu baax Euh, bu ñu xoolee aussi au niveau au niveau des couloirs extérieurs Wagué au départ moom la Aliou Cissé euh, joxoon confiance mais par la suite gis nañu Lamine Gassama ñëw assuré donc en défence on n'a pas problème on a de très bon défenseurs mais aussi on a de très bons gardiens de but parce que euh, bi bi bi Mendy gaañoo ñun ñëpp amoon nañu tiitaange mais tey gis nañu Gomis bi mu ñëwee assurance bi nga xam ni joxe na ko dans les cages ba nekk même euh, l'homme du match ci ci ci suñu demi-finale donc on a une bonne assise défensive mais euh, bu ñu waxee défense aussi dañuy wax ñi nga xam ne ñoom ñooy contribuer au rendement de la défense mooy tout un collectif parce que la défence elle est collective d'abord mais l'organisation bi équipe bi am am un milieu terrain bu nga xam ne wax dëgg yàlla boo amee Idrissa Gana Gueye am pap Alioune Ndiaye euh, ci ci ci ci ci milieu bi ay xeexkat lañu li ñuy récupérer ci bal bari na Henri Saivet noo na suppléer leen y avait Crépin donc on un bon l'assemblage de joueurs qui nous permet de faire des matchs pleins xëy na en attaque la ñu xaw a am tuuti sooxe donte équipe bi euh, dugal nañu au total je crois sept buts le ratio et bon même si c'est un but en moyenne par match mais le ratio et bon donc euh, mais ñi nga xam ni tey ñoom la ñu war a xaar dëgg ñu toj euh, terrain bi peut-être gisaguñu leen euh, on attendait mbay Niang ñu bëri xalaatoon nañ ni euh, heure bi dina fekk mu dugal lu bëri mais bon il a il a il a joué beaucoup de c'est pas match yu baax lay def. Mm-hmm. mais but bi moom moo ñëwagul il faut pas que sénégalais yi euh, di ko di ko di ko indexé di wax ni Mbaye Niang du dugal attaquant la attaquant but lañ koy doyee mais bu ñu xoolee par exemple euh, équipe bu France bi jël coupe du monde bi passé Olivier Giroud c'est un grand attaquant mais dugalul. mais li tax dugalul mooy daf doon sacrifié wu pour le collectif c'est exactement ci role boobu la mbay Niang nekk Mbaye Niang lu muy sonal défense defence bu mu yendu boo paree di nga dem maase wu di nga di nga di nga di nga di reere ndox boo moytuwul parce que c'est il est bon il s'impose il se bat il libère des espaces pour pour yeneen joueurs yi mën ko exploiter parce que bit yi nga xam ne presque dañ ko dugal yu ci bëri mbay Niang day day day fixer défense bi gars yi topp ko mu créer brèche gars yi jaar fa dugal ci la Idrissa Gana gee jaar jaar dugal bit bu rëy boobu bit bi mu passe Sadio maane aussi il était dos au but yor bal bi pivoté defal ko passe décisive mu dugal donc dugalul mais il se sacrifie pour le collectif donc. Euh, c'est vrai que mënoon na dugal ay bi yu bëri mais ni muy fubale actuellement nii pour mu dugal ci problème la mais bu dugalul mi ngi tax ñeneen ñi di dugal saajo aussi rendement bi ñuy xaar ci moom des na des na parce que le Sadio qu'on connaît ak potentiel bi mu am war na mun a fubal lu gën a ëpp lii mais xëy na pression équipe nationale dafa metti fubal Afrique dafa metti mi ngi koy wax sax ni Afrique même booy naa ne ndox gars yi dañ lay topp. donc du ñu marqué espace nit la ñuy marqué donc c'est très difficile de s'exprimer mais l'un dans l'autre il est en train de faire un bon tournoi Ismaïla Sarr la même chose moom c'est le dynamiteur des défenses donc on a on a un potentiel extraordinaire xam nga football dafa nekk lu nga xam ne c'est le collectif qui prime mais individualité ñoom ñooy régler problème bi bu match bi méttee donc il faut que nos individualités aussi pour la finale ñu éclater enfin pour jox Sénégal trophée bi comme ni nga ko waxee ci sa biir wax attaquant yu ñu am donc mën nañ xaarandi ni kenn final war nañoo mën a door score. non score du am score du am moom dóor score moom defe naa ni ca match de groupe yi ay ñoom Kenya ak yooyu ñooñu kay nga mënoon dóor ay score mais bu ñu plus tournoi bi dem plus muy metti et adversaire bi ñu am du adversaire bu nga xam ne dangay ñëw saax saaxe ko dóor ko wala dugal ko ay buts yu bëri l'Algérie n'a encaissé que deux buts dans ce tournoi ñun on na a encaissé qu'un seul l'Algérie et la meilleure attaque du tournoi le Sénégal yor la meilleure défense du tournoi donc match la bu nga xam ne ci ay détails lay jeexe donc c'est important parce que ñaari équipe yi dañu jegante sur le plan de la valeur donc kenn mënu ci sa moroom man ngoo ko mën a dóore yenn score yi mais li ci des nag ci fulla lay nekk ci fayda ci bëgg parce que premier match bi li ñu Algérie gagné woon euh, mooy dañ ñu ëppoon xadar et c'était parce que Sénégal ku daan football ak moom da ngay ne Sénégal dañu am rigueur donc engagement bi sénégalais yi am sur le plan physique sur le plan athlétique impact bi sénégalais yi am nan la ñuy def ba contourner loolu loolu la gars yi doon xalaat mais bu ñu demee tey ba naar yi ñëw jaay ñu xadar ci biir terrain di ñu dóor dàll ba ñun ñu teggi loolu ça laisse quand euh, une grosse interrogation parce que domaine boobu nit mënuñu ci war a gagner non non mais sur le plan de l'engagement c'est euh, boobu la loolu la ñu gagné woon moo tax maintenant match bi je pense que li ci ëpp solo mooy joueurs yi tirer tous les enseignements du match de group pour maintenant xam naka la ñuy aborder match bi euh, li ci ëpp solo mooy faut pas verser dans l'émotionnel waaw émotionnel wala enjeu bi bu mu leen tétaniser ba du ñu libéré wu le fait que équipe bi gagné woon leen en match de poule bu mu leen bu mu leen euh, indil benn jafe-jafe non non match de poule ak final bokkul. C'est totalement différent. Maintenant, c'est aux joueurs de se surpasser, de se motiver. soxlawul nit di leen motiver Algérie gagné na leen la revanche c'est maintenant te bu ñu ko jëlee maintenant day effacer lépp. nu ñu gisee suñu équipe bi léegi à quoi s'attend pour la finale. bon finale bi daal li ñuy xaar moom mooy mooy li réew mépp soxla rek mooy ñu ñëw jëmbat fulla fayda jom. xam ni tey Sénégal mi ngi xaar di yaakaar ñoom conscient nañ ci parce que moi quand j'entends bu ma déggee ku mel ni pap Alioune Ndiaye muy wax euh, da ngay yaakaar ni sax euh, li muy wax passé na ay atam mais c'est le niveau intellectuel du jour mooy reflété wu ci ay communication toujours day wax ne ñun xam nañu mission bi ñuy indi fii xam nañu métit métit bi nekk ci réew mi xam nañu jafe-jafe yi nekk Sénégal te xam nañ ni jël coupe bi dina am lu bëri lu mu saafara ci loolu donc joueur buy raisonné noonu rek ça veut dire que ison ont conscience de la mission maintenant li leen président waxoon bi ñuy dem je pense que ngànnaayoon nañ ko parce que président da leen ni lion de la teranga bëgguma ko dégg teranga bi bàyyi leen ko fi ngeen yóbbu jikko gaynde bi bu ngeen demee nekk gaynde bu ngeen ñëwee ñun ñu teral leen donc je pense que loolu tey euh, ci la xale yi nekk ay gaynde dëgg la ñuy gis parce que dañuy dem ba jeex boo xoolee euh, lu tournoi bi dem tu sens que les joueurs sont mm-hmm. ah, sonn nañu xoola keroog Idrissa Gana Gueye a fait la la la la plus mauvaise prestation ci ci ci ci ci équipe nationale ci demi-finale bi c'est la fatigue c'est la fatigue parce que il a une fatigue musculaire il a joué plus de 60 matchs euh, euh, Sadio a joué soixantaine de matchs suñu joueurs yi dañu titulaire seen club le le le ratio se trouve entre quarante cinquante matchs dans les jambes nga ñëw enchaîner ak Coupe d'Afrique des Nations amul benn yoon boo am rupture pour noppalu loolu dafay jouer ci ñoom mais je pense que euh, loolu l'un dans l'autre Euh, am na lu nga xam ne moom moo caractériser doomu Sénégal ñu koy wax le les vertus de l'homo sénégalensis on nous tue on ne nous déshonore pas te c'est le moment ou jamais pour cette équipe la euh, d'inscrire son nom encore une fois dans le panthéon de l'histoire du football continental mën nañu ko te dinañ ko def incha allah. ma lay remercier ci disponibilité bi nga am accueillir ñu fii partager ak ñun ak suñu mbokk internet yu enquête 221 sa xalaat ak sa gis-gis ci CAN 2019 bi. waaw CAN la bu nga xam ne euh, bi muy démarré amoon nañu tuuti appréhension parce que c'est la première CAN à 24 équipes donc euh, c'est long ça s'est joué sur un mois. Euh, ñu joué ko aussi ci période bu nga xam ne c'est en fin de saison joueurs yu bëri dañu dañu dañu am charge comme ni ma ko waxee ay match yu bëri dans les jambes en plus les conditions climatiques en Égypte dafa metti parce qu'il y a une chaleur bu metti bu metti foofu donc l'un dans l'autre ñun ñëpp dañu xawoon yaakaar ne bu ñu dugalee vingt quatre équipes dina am ay ay ay tokaar yu ci bokk te dina wàcce niveau compétition bi mais tey bu ñu gisee euh, Madagascar ni mu surprendre ñu bëri euh, donc dañuy wax ne euh, vraiment c'est bien de faire une CAN à vingt quatre liñ ci doon ragal gisuñu ko ci le niveau est bon et tey on applaudit li ci des nag mooy regret bi ñuy am rek mooy Égypte teel na toog mais les égyptiens du ñu dem stade donc on joue pratiquement des matchs de très haut niveau dans des stades presque vides euh, loolu rek moo ci moo ci ñuul mais je pense que pour euh, cette Coupe d'Afrique des Nations ça a été une réussite sur le plan du jeu sur le plan de l'engagement sur le plan du niveau euh, gis nañ ci lu am solo li ci des nag mooy le bouquet final ñu terminer en beauté et que le Sénégal soit champion d'Afrique yéen également en 221 ma leen di euh, jaajëfal ah yow moom xam nga ni boo ma soxlaa ku soxla ñàkk <laughs> peut-être internautes yi duñu duñu duñu duñu comprendre ah am na feneen fu ñu bokke fu bokkul ak liggéey bi euh, nga bëgg liggéey bi aussi ndax man ah, lu ci bari tu vois euh, nga bokk ci famille bu nga xam ne sport da ngeen koy dund vous l'avez dans le sang donc tey nga toog di ma laaj euh, c'est un plaisir ma seq ko ak yow parce que j'étais toujours encouragé à devenir euh, journaliste sportif sa papa bëggul mais xam nga nit ki passion ak li mu bëgg <laughs> mënoo ci dara donc euh, voilà man bi may nekk xale lii laa doon foye kenn mënu ci woon dara bu nit ñuy fubal ma ni maay Ablaye Diaw yor samay pot di reporter ba tey jii yàlla def nu mu lu muy def nii donc dañ leen di encourager rek ngeen persévérer liggéey bi yombul mais jafewul aussi c'est juste des principes vous êtes jeune gën leen gëstu jege ñi nga xam ne am nañu tuuti expérience di leen laaj bañ a doylu bañ a naagu donc euh, voilà et puis plein succès. merci beaucoup. <laughs> ok kontaan naa maa gën kontaan. <laughs> sama mbokk internet yi enquête 221 lii laa leen andi loon tey gis ngeen ko nekk na koo xam ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal. mën nañ la sax international ñëpp xam nañ ko ki ma invité woon tey mooy Malick Thiandoum Malick jox nag dig daje final bi ak troisième place bi incha allah d'ici ay fan yu néew ñuy naa leen di leen jaajëfal merci beaucoup.